ni ngeen baaxoo déggee suñu kàddu nag. sëriñ bi nee na ni ngeen baaxoo déggee kàddoom rek. ci turu sëriñ Falilou Fall jëriñ sëriñ Modou Aminta. ci turu sëriñ Falilou Fall jëriñ sëriñ Modou Aminta Fall. ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ak dundam lool te wéral ko. da ngay law nag waaye maa ngi ñëw. <laughs> waaw. la ko a waxee ndax ci turu sëriñ Cheikh Fall moom bi nee na noonu la ko mën a waxee ndax ci kaddu kilifaam sëriñ eh, eh, sëriñ. sëriñ Cheikh Fall. sëriñ Cheikh Fall. moom Cheikh Modou Moustapha. moom Cheikh Modou Moustapha. ñu gën koo xam si Cheikh koo xam nag ci sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue. ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ak dundam te wéral ko. ak njabootu Cheikh ak njabootuk Cheikh Modou Moustapha Fall gépp. ak njabootu Cheikh Fall gépp rek. ak njabootuk Cheikh Ibrahima Fall gépp rek. Cheikh Moustapha lu ko lu ko mën a waaye tàbbal na kilifa si yëpp rek. sëriñ bi nee na da koo munta lim waaye tàbbal na kilifaam yëpp rek Euh, ñi dégg ñoom. ñi ñuy dégg ñoom. miin nañ ñu. miin nañ ko. xam nañ ki ñuy waxal. xam nañ it ki ñuy waxal. xam nañ ki wax. xam nañ it kiy wax. Euh, bu suñ bu kaddu Sëriñ Fallu jubee. bu kaddu Sëriñ lu jógee. yëkkatilu kaddoom. yëkkatilu kaddoom. moom damuwul. moom damuwul. kañuwul kañuwul. dafa nekk ci biir kilifaam. dafa nekk ci biir kilifaam. bëgg a boole waxal leen defal leen bëgg a boole waxal leen ak defal leen. loolu doom ju am jom ju nekk. loolu doom ju am jom ju ne. di sa taawu baay. di sa taawu baay. danga ko nangoo def ci sa kër baay. di nga ko nangoo kër baay. kon kum neex roy ci Serigne Fallilou. kon kum neex rek royal ci Serigne Fallilou Fall. Ah. waaye nag ci turu. waaye nag ci turu. jëwriñ ji nga xam ni. jëwriñ ji nga xam ni. lu waay def lu waay def ci yoon wi. def ci yoon wi. moom la ko defal. moom nga ko defal. di Cheikh Modou Moustapha. di Cheikh Modou Moustapha. ñu di ko wooyee. nag di ko wooyee nag. sëñ Amdi moom sëñ Modou Mbenda Fall. ñu ngi ñaan suñu borom yagal ak dundam lool te wéral ko. kii toog kii toog. Moy Cheikh Ahmadou Fadal. mooy Cheikh Ahmadou Fadal. ndax way juram wa. ndax way juróom wa. li ma wax mooy. lim ci jubloo wax nag mooy. bala nga tuddu Serigne Touba. bala nga tuddu Serigne Touba. bala Cheikh bala Cheikh nga Cheikh Cheikh Modou mom day meñatu Fadal. Cheikh Fadal. motax nak Serigne bi ci lolé Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Fallou moom Serigne Fallou moom Cheikh Souhaïbou Mbacké moom Cheikh Souhaïbou Mbacké moom Xadimu Rasul nag moom Xadimu Rasul nag woowu tur El Hadj Ibrahima Dia ak Mouride woowu tur Baye El Hadj Ibrahima Dia nee na yaa ak Mouride yi yaa ak Mouride yi muy kilifa yii fi toog muy kilifa yii fi toog woowu tur jot sëkk la woowu tur Serigne bi nee na jot na sëkk kon kaddu yi ci loxoom lañ koy teg kon kaddu yi nag ci loxoy Serigne Saliou mii lañ koy teg di ko nuyu ñun murid di ko nuyu nag ñun murid yi. di ko siyaare di ko sant di ko gërëm. di ko gërëm. ci ci melokaan wi rek. ci melokaan wi rek alhamdulilah. nga xam ni. nga xam ni moom ku gis Serigne Saliou mii ku ne. xam ni yoonu maamam bii. yoonu maamam bii. ñor na ko ñor na ko lool. moo waral moo waral nag way juram yi. moo yi. maamam yi. maamam yi. murid ñëpp def ko muy seenu soppe. def ko muy seenu soppe rek. koo mag ku ku ko mag ku ne. bàyyi nga ko xel. nga ko xel. ku ko jur ku ne. ku ko jur ku ne. bàyyi nga ko xel. ko xel. maam yaag way jur yaag bokk yaag. maam yaag way jur yaag bokk yaag taaliba yëpp. ñëpp ko bàyyi xel rek ñëpp ko bàyyi xel rek nee na. ndax melokaan wi ndax melokaan wi. li ko alal ji jaral. li ko alalam ji jaral. alal moom bu ko borom bëggee. alal moom bu ko borom bëggee. jëwriñu daan wax ni. dana yomb bolé moom dana di seigne Modou Aminta tafal mo daan wax lolu ni ngi ñaan suñu borom doli ñuko ay ngërëm li tax ñu yëkëti kaddu yi seigne bi neen li tax mu yëkëti kaddu yi ah, suñu kilifa bëgg seen kilifa mo bëgg lu nar a agsi fi mom rek lu nar a fi moom rek jaar fi ñoom jaar fi ñoom ñii ana ñu andi won uh, mbalem Touba mi ana ñu indi won mbalem Touba mi waaw waaw ah, ah, ñoo ngi toog waaw ñoo ngi nii toog gopp yi ñu doon wacce legi gopp yi ñu doon wàcce léegi ay rado ko jiitu. ay rado ñoo ko jiitu. ak i ëllëg. ak i ëllëg. muy muy li nar ci gopp yi. muy leen nar a def ci gopp yi. ak i rado. ak i rado. ak i fourchette. ak i fourchette. ak addiya jum àndal. ak addiya nag jum àndal. ñëw fekk la fi nag. ñëw fekk la fi nag. loolu Mbacke seere loolu sëriñ bi nee na seere la ci yow sëriñ Saliou. yoon yoon yoonu lislaam gépp. yoonu lislaam gépp. ñu koy tuddoo. ñu koy tuddoo. rawatina nag kër sëñ Touba gii di. rawatina nag kër sëñ loolu moom mën ci seere sëkk loolu moom Serigne Saliou mën nga ci seere sëkk. lu ci Cheikh Saliou teewee. lu ci Cheikh Saliou teewee. doy na sëkk doy na sëkk kon seere la ci. jëf ji. moom waa waa liggéey bii. moom waa liggéey bii. seen jëf ji am na seere. seen jëf ji am na seere. Ah, dafa jaar ci Serigne Falilou. dafa jaar ci Serigne falilu te murid yi moom Mbacke dañoo gore. te murid yi moom Mbacke dañoo gore. rawatina kër Cheikh Fall gii. rawatina nag kër ah, doom ji. doom ji. dib taalibe dib taalibe di lepp yoon wi. di lépp yoon wi. di sëriñ Falilou. di Fall. doyloo gi ko doylo doylo giñ ko doylo loolu fa du ngor rek. loolu serigne bi nee du ngor rek. gore la gore la. ndax kako doylo won ndax kako doylo won ak ñako doylo won ak ñako doylo won batte ku seen kanam ba teg seen kanam. Euh, ku gore rek. ku gore rek. moo mën a dëggal. moo mën a dëggal. lañ defoon lañ defon te ñepp ko deugal te ñepp ko deugal nak ñepp nangul fi mu ne rek. ñepp nangul fi mu nekk rek. ñoko nangul itam. ñoko ko nangul itam. ñu ngi xamal murid yi ni leen. ci turu Serigne Fallilou. ci ki joxe woon baatum ndigal bii. muy setal kër Cheikh muy setal nag kër Cheikh Ibrahima Fall gii. nga xam ne bu nga xam ne bu kër Cheikh Ibrahima Fall setee rek day mel ni lépp set na. tey jii la yow tey jii nee na la yow ma salaasa. suba rek dox diggante suba rek moo dox benn moo benn panub safar. waaw euh, di mbale mi di yomal xamis ba tey. di di mi nag di yomal xamis ba tey. bu ñu setalee kër gi nag. bu ñu setalee kër gi nag ba noppi. mooy waral jëwriñu Cheikh Fall ji. mooy waral nag jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ji. man fee nekk man fee nekk. nuy nuy xëy di bale ji. nuy xëy nag di bale ji. di sos moom di sos nag ci moom. waaw li wala si lébu naan a jàngali pël. sëriñ bi nee na moom daal li ñuy lébu ne lawbe moo neex a jàngali pël. ñi may waxal moom xam na xam sëriñ bi nee na xam na li muy wax. xam nañ li mu bëgg a xam nañ li mu a wax. dañoo bëgg rek. dañoo bëgg rek. barab bi sel barab bi sell. lool lool nag. ba jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ji man fee nekk. ba jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ji man fee nekk. di taxawu liggéey Cheikh di taxawu nag liggéey liggéeyub Serigne Touba bii. na ko bëggee. nam ko bëggee. loolu moo waral woote bii. loolu moo waral nag woote tey bii. waaye lépp a ñëw. waaye nag lépp a ñëw. ñëpp a ñëw ñëpp ñëw it. fépp a ñëw fépp a ñëw it. moo waral mbooloo mi demee nii. moo waral nag mbooloo mi demee nii. waaye nag nan ko bëggee woon. waaye nag nee nañ ko bëggee woon. wala boog nam nam ko bëggee woon. wala moom nam ko bëggee woon moom. amee na ni amee na ni. ba amee nu raw njot ba amee nag nu raw njot sax nam ko foogee woon. loolu moo waral loolu nag sëriñ bi nee na moo waral mu yëkkati kàddoom moom. di sant mbooloo mi ci turu sëriñ di sant nag mbooloo mi ci turu sëriñ bi. geneen kàddu dina am. geneen kàddu nee na dina am. gu ñëpp teewee. gu ñëpp teewee. waaye daa fekk nag gii moom. waaye daa fekk nag gii moom. mu ne wax ngir jëmm mu ne su ko wax ngir mu ne su ko ñàkk mu su ko ñàkk bañ a wax. ngir ngir jëmm ji toog. ngir jëmm ji toog di Serigne Saliou Mbacké. di Cheikh Saliou mii. moom Cheikh Modou Fadal. moom Serigne Souhaïbou Mbacké. moom Khadimou Rassoul. noonu la ko Serigne ba mën a waxee ba tey. ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ak dundam lool te wéral ko. waaye nag ak way juróom mu tedd ba nag. Ah, moom daal Serigne Saliou Mbacké. kenn ci ñu baax ñi. kenn ci ñu baax ñi. daa waxoon ni. boo dajee woon ak saay-saay sax. boo dajee woon ak saay ak ako saay-saay sax. muy wax te la muy wax dëgg nag. muy wax te la muy wax di dëgg nag. yow luy sa yoon gam saay. nee na moom luy sa yoon ca caay-caay gamu caay-caay. jëriñool jëriñool. dëgg dëgg mu wax rek ni mu wax rek. bàyyi ma yi ci biir kër gi. bàyyi ma nekk ci biir kër gi. di fas yi di fas yi. ak baam yi ak baam yi. nee na doo bokk ñoom lekk. nee na doo bokk ñoom lekk. doo bokk ñoom naan doo bokk ñoom naan. waaye yaa ngay jëriñoo seen doole ji. waaye nag yaa ngay jëriñoo seen doole ja. misaal mu yaatu la nag. misaal nag lan mu yaatu. mu yaatu moo xam ne ko teg fu nekk. moo xam ne nag mën nga ko teg fu nekk. lii nii wax laa bëgg xam laa bëgg ñu xam sëriñ bi wax nag la bëgg ñu xam ni. fi ma fi mu jaar fépp. suñ ko ci bàyyee dëgg la. suñ ko ci bàyyee lépp dëgg la. ndax ki ñuy wax loo lu mu wax loo dëgg la. ndax ki ñuy wax loo. lu wax dëgg la lu mu wax rek dëgg la. waaye ña koy waxloo nag. waaye ña koy waxloo nag. lu ñu wax dëgg la ñoom. lu ñu wax it dëgg la ñoom. waaye ka di waxloo itam. waaye ka di waxloo itam ñoom. lu mu wax dëgg la lu mu wax rek dëgg la. noo ngi sant sëriñ bi nee na mi ngi sant mbooloo mii. ci turu jëwriñu sëriñ Modou Fall ji. ci turu jëwriñu sëriñ Modou Aminta Fall ji. ci turu jëwriñam yi di way juróom yi. ci turu jëwriñam yi di way juróom yi. nga xam ne ñoo fab kaddu yëpp jox ko. waaye ci turu seen kilifa nag. nga xam ne kooku nga xam ne lu def ci yoon rek. moom la ko defal. di jëwriñ nag Cheikh Ibrahima Fall ja. Cheikh Modou Moustapha Cheikh Moustapha moom Cheikh Modou Mbenda Fall ñu ngi ñaan suñu borom àggale yéen ñu baax ñëpp ci moom àggaleel ko yéenam ci baax ñëpp àggaleel ko yéenam ci ñu baax ñëpp ah, lii doy na ab tàmbali sëriñ bi nee na lii nag doy na ab tàmbali bañ dem nag ca bañ dem nag ca kaddu ga nga xam ne kaddu xam ne nag fañ koy waxee ñëpp dañ cay doon <laughs> alhamdulilahi rabil alamin loolu nag Mbacke yaa tàmbali ko léegi. yaa tax nag ñu tàmbali ko léegi. kon daf leen di wax ni ñoom. néegal ba ñu dem fa ñuy waxee. néeg leen ba ñu dem nag fa ñuy waxee. ñii di jëf. ñii di jëf. duñ jëf ba noppi. duñ jëf ba noppi. gàddu seenu làmmiñ topp gàddu seenu làmmiñ topp ca. faw des na leen waxal. faaw des na leen waxal. sax moo neex suñu jëfatee ba noppi. sëriñ bi neen noonu sax moo teex neex buñu jëfatee ba noppi. ñaw sunu làmmiñ nag. ñaw nag sunu làmmiñ. nu waxal nu waxal nu. waaye jëf ba nag. waaye jëf ba noppi nag. gàddu sow làmmiñ topp gàddu sow làmmiñ topp ja. day ayibal jëf. day ayibal jëf. Hmm. ci am na koo xam sëriñ bi nee na am na koo xam ni. ab rajo la ngàbboon léegi. ab rajo la ngàbboon léegi. daa ñëw ni ma. daa ñëw ni sëriñ bi. maa nga jubale ci rajo ba. maa nga jubale ci rajo ba. waaye waxal na ma ko waxee nag. waaye waxal nag na ko waxee. direct. waaw cara rajo ba la koy def en direct may ko loolu tax du wax nag sëriñ bi ne ko nak lolou nak motax duma wax nak ndax yow do sama serigne wax wax wa radio ba ñepp ñoo dul rek wax ak wa radio ba ñepp dima deglu déglu nga ñëw jox ma sa micro nga ko micro moom ni ko waxal moo tax bi niko waxuma nak ndax do do sama serigne yow ci rabbil alamin non la def Mbacké non la ko defee la ko defee nag ma rek ni maa ngi nangam nangam daa ñëw rek ko serigne bi ni ko nekk ni yaangi en direct waaw Ah, jigéen moom bëggee ab sëyam rafet bi nee na jigéen moom bu bëggee ab sëyam rafet day am nag benn borom kër waaye ku ñëw di borom këram du fa gën li ab sëy moom eh? du fa gën li ab sëy mukk ci àdduna moo tax nag nee na moom moo bëgg am benn borom kër rek <laughs> sëriñ bi nee na jërëjëfati Mbacke sëriñ Saliou jërëjëfati jërëjëfati Mbacke alhamdulilah alhamdulilah sëriñ bi nee na ñun murid yi daal bëgg nañ ci yow sëriñ Saliou lool waaye ñu am nag eh, ku tedd ko xan ne que dafay ñëw léegi di sëriñ Saliou Mbacké mm-hmm. eh, mu sëñ Fall mu mm-hmm. sëñ sooy bu Mbacké mm-hmm. eh, doon nit ku yow ku baax lool ku bëgg Cheikh Ibrahima Fall wajuróomu tedd ba day dafa yëkkati woon ay kàddu jëmee ko Cheikh Modou Fall Fall ndax daa nekk ba sëñ Modou Aminta joxe ji addiya mu ngàbbe fa addiyaam nag di ko ne ko man day Mbacké Fall Mbacké laa sant sëñ sooy bu Mbacké mooy sa baay sëñ Tuubaa mooy sa maam waaye damaa xamul ba xam bu ko joxee ba xam dana nangoom déet waaye xam naa Cheikh Ibrahima moom lépp lu mu jox sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dana ko nangu ma bëggoon nag sama addi ji sama addi ji ma joxal ko ndax nga joxal ma ko sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa nangu ko loolu nag ñu am ci cant teew gi nga ko teewee waaye la jëkk loolu nag Cheikh eh, Abdoulaye Mbacké mu baax ma moom li moo xalaatoon xalaat yi moo ne sëñ Tuubaa fu mu nekk Cheikh Ibra Fall war na fa am kër woolu Cheikh Modou Fallou Fall ba mu ñëw mu natt lii jox ko hmm. di ñetti junni pàkk ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñeenti junni ah, pàkk waaw hmm. ah, ak ñetti téeméer yu tegal loolu kër Cheikh na Fall la hmm. seet leen bu doy dinaa leen dolli loolu nag bi yàlla le nga fekk nu fi ah, nga fekk nu fi waaye fi feer gu ñu laa yor de. waaw ah, nga fekk ba jëm nii bi fi jëm nii bi doo ko jëmee noonu. waaye ba njëkkee ñu ma ma alay bi ñu ànd. ñu ñu ñu fi feer gu ñuul. di di di taxawal garab fu ñu jëmale garab. waaw fi feer gu ñuul. Ah, soxlaa mi ah. la <laughs> ci biir ñax ma nag mu xëy daa boo daa boole duub jàkk. lépp lu boole woon rek sëñ bi xanaa kon kàddu yi nga nuy kàddu yi nga nuy jaajëwaat rek ak yi nga nuy dimbalee moo tax waxal ak sëñ bi maa ngi sant sunu borom bu baax sant sëñ Tuubaa di di di di di ko gërëmal Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne mooy buntu yoon wi di lépp yoon wi dama li ma taxoon a jóg nag mooy dama sëñ sëñ seex Mamadou Moustapha mii di sunu jëwriñ dama ko masoon a wax ne ko man dama bëgg seex Ibra Fall lool ba awma ci sago yàlla ah. dogal na mas naa am benn bis ma ñëw fee ca Mbacke fekk fekk fa sëñ Modou Aminta ah. yal na ko yàlla dolli ay ngërëm ak i leer ma ne ko tey jii li ma tax a jug mooy dama bëgg Cheikh Ibra lool te nga nekkal ko fi ba noppi xamoo ma metti ma moo tax ma bëgg ñëw nga xam ma <laughs> oh, oh, oh. waaw loolu nag jëmmi jëmmi jëmmi cërub Cheikh Ibra boobu moom mii laa def sama bunt ci lool waaw moo tax lu fi xew rek ci moom laa ñëw mbale yi mbale meek yëpp su ma jubal see ci moom ak ca liggéey bale ca ca mbàkke yëpp ba ba teg sama xarit yi ci loxoom day mel ne teg naa ko ci loxol see Ibrahima Fall waaw moo ma ñëw fi tey jii Cheikh Ibrahima kat damaa dégg ñu ne dafa waxoon ne liggéeyub Sëñ Tuubaa bu jógee loo yilife nit ba yebal ko ca bu delsee dana la yilife yilife nu toll noonu waaw ku ci yabal sa doom toog bu dikkee doon sa baay ku ci ku ci yabal ku ci sa taalibe toog bu dikkee doon sa sëriñ ko yabal sa soxna toog sax bu dikkee doon sa jëkkër ah, ah, moo tax ma moo taxen ma bëggoon kenn du ma ci ñëwal maa ngi ñëwal sax ñaareel ba ñaar yoo xam ne benn bi Cheikh Ibrahima ko waxoon li ci de Sëñ Bay Jaxat wax ko ci Sëñ Tuubaa dama ko fee yëgee Cheikh Ibrahima dane woon hmm. waaraate wóorut fexe ba ku la gis waaru moo ko gën a wóor yaa yow boo noppi woon hmm. ñaw sa gémmiñ gi toogit hmm. ku la gis dolli ko ci Seex Ibra waaw ah, loolu tawfeex la julli yàlla defal maa ngi la ciy santale sa borom dégg ah, te ñaan mu yàgg lool waaw ah, yàgg lool parce que Baye Jam mi daf maa wax léegi ne ma nañ la ñaanal ah. suñu boroom yàggal la fi ndax tax nga kenn jaaxlewut mm. ma ne ko loolu mm. bul jàpp ne mukk fii la yem ci kër gi waaye ci murid yëpp la sar mm. waaw ku la gis ku ne te dara ci moom ci ak bi nekk ci xolam bu la gisee dana dolliku waaw dana dolliku ndax melokaan wi ak jëf yeeg wax yëpp dëppoo na te dara génn ci Seex Ibra lu génn Seex Ibra nag du mën a génn Sëñ Tuubaa mukk ñaareel ba sëñ bay jaxat dana sëñ bi daa wax ci sëñ bi ne fu mu ne kenn du fa mer kenn du fa jooy wax ju mu wax ñëpp na cëy loolu yég naa ko ci sa jotaay bi <laughs> yàlla na sëñ Tuubaa dimbali te saxal ñu ci li li sëñ bëgg ko ca sax wax naa fi léegi ne dafay mel ne bu ñu doon wax dañ naan Seex sëñ Tuubaa benn taalibe la am muy Seex bi keneen ku mu doon nag ci murid yi taalibu Seex Ibra nga ndax li sëñ Tuubaa yoroon di ko sàkku yor yor ko te munta wax munta wax ne jël leen ko hmm. wala jële leen ko nii hmm. Cheikh Ibrahima la yàlla defal tawfeex hmm. mu xam nañ koy jële nañ koy sàkkoo mu sàkkoo ko noonu ba am ko ba sëñ bi ci boppam seereel ko ne fa ko boromam teg ko teg loolu nag te déggaatuñ fu mu ko waxee. ma ma dul ci kàddu gi sax. waaw xam ma daa ah, ma ko wax ni El Hadj Ibrahima mel. waaye waaye seraay maam nag uh-huh. ah, bi bi nett wax si sëñ bi jaaj yi ni sëñ bi doon ni Abdou Dia mu ne ko bàkk mu ne ko bàyyi ngeen benn taal bi rek la am ah waaw ah loolu leer na ni ko sëñ du mm-hmm. eh, ma doon tàndale di wax rek waaw ba ba tekk ji yàggee nag mm-hmm. sëñ Abdou Dia xam ne wax jawaab ji mooy tontu mm-hmm. mu ne ko taalibe bi mu mbàkki sëñ bi ne ko Ibrahima Fall waaye la ma ci doon nag la pank mel alay bi te sant Fall ni yii wax na moom bu neexoon sëñ Abdou Dia naan man mi la jébal sama bopp nag alhamdulilah yaakaar la kuy sama sëriñ wala mu ne ko si Amadou Fall ak seen mënu Samba ak sa taaw bii nga xam ne jaay na ñu ne ko si bi kuy suñu sëriñ ma ñëwee la tax mu waxee noonu day day def muy boppam nga xam ne yenn gi ma yenn ndax loolu ak la ci man ndekk si kon suñu tuwaay seen mënu Samba ñooy jaay ndekk si ñooy suñu tuwaay ñoom di di fi waate de te kat fee féerul baax koo xamul dara de waaye tontu li ma tontu nag des koo sol ndax man maa ngi doon tiit ñi yeekoon kuy seenu taalibe ndax ñoom ñu jaayante woon suñu doon nangu na jaayante Cheikh Moustapha Mbacké ñaa ñëw nangu na ko suñu wér dama yaakaar ne la jege moo tax mën a tontu mën ma xam waaw loolu moo tax maa tontu loolu <laughs> dafa fa ko def ma tontu daa am ko mas a ñëw bi waaw sëñ Fall la sax waaw ne ko damay laaj ñaari laaj mu ne ko ban ak ban mu ne ko ak taalibe laay laaj mooy lan mm. ak fu yàlla ne mm. eh, sëñ bi ne ko bu dee ak taalibe laaj ko Ibra bu dee fu yàlla ne nag laaj ko Maxtaar Joob mii ci sama wet mm. mu laaj ko mu ne ko ah man de xawma ci yàlla dara waaye lii ma wóor mooy moom mii fu mu ne yàlla nga <laughs> sëñ bi dane ko lii du sam xel waaye jege gi ma jege moo tax nga mën a toog <laughs> waaw waaw waaw <laughs>